amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Mustafa tëddal nang nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiroo tamit ay ñaan sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mahmadul Bachir mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba kër gi bokk ci ay këram sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nekkal ko fii ñu di leen ñaanal ñoom ak njabootu sëriñ Touba gépp suñ borom yàggal leen fii te mottali seeni naal te ñoo ànd ko ak ñoom sëriñ bi tey jii dafa doon bis boo xam ne dañ cee sopp ci ab jullit dañ cee sopp ci ab jullit mu siyaara ci aji xam nun nag sëriñ bi li nga doon ci nun romb na rek aji xam yaakaar nga ci nun wéeruwaay nga ci nun ab delluwaay nga it ci nun ku jàqit ci yow rekk lay delsi kon bis bi nun dañ cee bëgg a lare moo di def ci li ci lislaam santaane sopp ko ci waaye itam ñëw teewaat fi sa kanam ngir xam ku teew fi sa kanam te teewa fi ni fi war a teewe la muy jëlee ci teew gi ak la ko borom di defal ci kàttanu sëriñ bi daayira ahbaabul Moustapha nag di kuréel goo xam ne dafa sosu ngir liggéeyal Cheikh Mamadul Moustapha cin njabootam te yéen ñi ngeen nekk ci bopp bi at mu jot nga may leen na leen ko sa seen mag yu baaxee maye woon mooy bu bis bi jotee li seenug jot di xat-xat li ngeen di bari bari ay yitte ngeen may leen waxtu wu gàtt ci seeni waxtu te loolu di di lu rëy ci ñoom sëriñ Cheikh Lo daayira la ñuy njëkk jox kàddu bu ñu noppee ñu jox kàddu sëriñ Mbay Bayti mi nga xam ne moo jiitee daayira Ahbabul Moustapha te sos ko suñu noppee ñu jox sëriñ Moustapha Ndiaate ni mu ko baaxoo defee mu yëkkate ay kàddu suñu noppee nag ñu jox sëriñ bi kàddu yu mujj yi mu dénk nu ñaanal nu nu yeewi ko ba déwén incha allahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatu bokki julli fi taw yeb serigne bi ñoo ma andando yekati seen kaddu jox nu tan ci lol nuy sakku nga ñaanal nu ba lanu bëggoon wax ko mu defé ko nañu ko bëggee sëriñ bi soppey cheikh mouhamadul moustapha wala rëy cheikh mouhamadou moustapha ñoo bokk sukk fii sa kanam di beesal sunub siyaar ci bis bu tedd bii di beesal sunub taalibe ci sunu diggante ak cheikh mouhamadul moustapha mën na noo wax ne taalibe yépp yoon wi yëpp ñoo bokk sukk fi sa kanam ndax ñëpp taalibe Cheikh Mouhamadou Moustapha lañ ndax ku tedd ki bi muy dem ci loxoom la ko tegoon kon ñooñu ñoo bokk sukk fi sa kanam di la siyaar di beesal seenu cofeel suñu digganteeg Cheikh Moustapha di beesal suñu yaakaar ci suñu digganteeg Cheikh Moustapha dina la ci barke Cheikh Mouhamadou Moustapha sunu boroom defal la lañ benn boroom xam-xam doon ñaanal kilifa ga naan ko yal na la sunu boroom defal téeméeri at yu tofal ànd ak bëri dem yal na la ko sunu boroom defal amiin lu tofal lu ne xaj na ca kon noonu la koy ñaanal ci barke Cheikh Moustapha di la siyaar di rafet njortit ci siyaare bi ndax sunu boroom defal nañu ci mu tombeek waxtu wa nga xam ne eh, Cheikh Mouhamadul Bachir moo waxoon te kama ko nettali mooy sëriñ Mor Kan nekkoon chef de village su Daaru Minam moo ma ko nettali ci làmmiñu boppam ne ma sëriñ Bachiroo ko wax ci làmmiñu boppam ne ko sëriñ Touba nee na ñetti bis yi ñoo gën ci siyaare ca waxtu ya waxtu yii sunu borom nag tombe na ca bis boobee ak ci waxtu woowee mooy alxamis ginnaaw tàkkusaan mooy fi nu toll ajjuma suba teel gaawu yoor yoor loolu sëñ Mor Kan moo ko nettali ci làmmiñu boppam ne sëñ Basiiru moo ko wax ne sëriñ Touba nee na mooy bis yi gën ci siyaare kon alhamdulilahi rabbil alamin bi mu tombeek bu ñu tombeek waxtu woowa i mënunoo wax daaneel nag te tudd nu jenn jàmbaar joo xam ne yàggu rekk la dëgg moo doon koo xam ne da doon ku jàmbaare ci ahbabul Moustapha di ko jàmbaare ci diiwaanul muridina doonoon koo xam ne ci lépp lu baax ci Touba moo xam ndox mi moo xam Touba ca kanam foo ko fekk mi ngi laxasaay di liggéey sëñ Touba sunu borom jëlee fi bu yàggut muy sëriñ Ahmadou Cissé doonoon murid sadiq sëriñ bi ñoo la koy seeral ne doonoon na jëmm joo xam ne mel na moom yombul kon nag noo ngi sàkk mbooloo mépp ñaanal ko nuy sàkku it ñi nga xam ne nekkoon nañ ci sunu boroom def ñu jiitu sunu borom defal leen yërmande ci barkeeb Cheikh Mouhamadou Moustapha Muxtaar fadilatu Cheikh Ahmadou Muxtaar السلام عليكم نغي ngi تي nuyu مbolo mi fi tew bi nu leen wooyee ci mbir ñu daj seen xol bokku ca loola ñu wuy ci mooy xubbul mustafa ci len len wo de muy sop Cheikh mustafa mbolam ñu daj seen xol daj ci xubbul mustafa te ku tedd ki waxoon ne diini ya xubbullaahi wa rasuli wa xubbu xisbihi wa nitu suuli dellu wax ne diini ya xubbullaahi wal mushafai mustaxniyan bi sirrihi an midfai dellu wax ne diini ya xubbullaahi wa rasuli salla alayhi qaidun lii suuli lépp di mahabbatu mu ne gariqtu fi baxri mahabbatil jalil وبحر حب حبده الحب الخليل كينو سي تي موم كينو ياكار كينو نيت بيرم في لا نه لول فوفو لا موم لا ني موم سيني توبا خادم المصطفى بروم دك بي بروم كير موم نك نانا فوفي لا كوكو مان دي سيت نانا لابنا تي جيجي سوب يالا يونتبي صلى الله عليه وسلم ني سما دين موي سوب يالا يونتبي ak gaay yu baax yi sopp mu doy ma walis ay ngànnaay ak i fayantoo sopp yàlla ak bi mu may ma lu ma amoon lu ma bëggoon loolu nee na moo ma ko may wan niltu suul yi nu teew nag fi bàkkam bii nga xam ne moo ko rëddal boppam muy daarul xudduusi tuddi ko tur wu rëy mu yor rëyaayu jëmm joojee dëkk fi lu yàgg denc fi denc yu yër nu teew fi diko xeyntu mom suñu serigne boobu yi al Khadim xeyntu ay momeram ak i ak waxam tassara ko ci ay lu melni conférence ak magal ak i bobu yi xewagut dara ci xewagut bu ko defé nak amal ben bis moy bi diko ci sant diko ci jaar lo mo ne ci estati bi sëñ ali Mbacke si yoon mii nii ma ti loolu juguñ ci ba tey génnuñ ko fenn lettre sëñ Aliou ngi nii di feddali dina joxaat feddali nee na eh sëñ Mbàkke wa damaa bëgg liggéey bi jëm kanam kat waaye bëgg mu deltu gannaaw mu mu deltu gannaaw na jëm kanam daa koy bind signé lettre baa ngi nii ma tiim mu soññunu xëccoowunu dara dara dara dara dara daje képp ngir ngoon gi daje sargal la siyaar la jeex na daayira jeex képp li ci lépp diiwaan bi nga xam ne moo lëkkalee daayira kër gi waaye moom képp ku jéblu ci kër mu Moustapha moo la lëkkale yooyee ñoo yor loola te ñu koy doxal muy màggal gi mu xam moo gën a ñor sëñ bi illaa bi loolu amagut sasoo wan nan fi daaray kaamil ji ba tabax ko terrasse ko terrasse baax garage bii nu tabax ko wecce muy war na yee ñu tabax ko manga si bii ci ko sëñ Omar nu tabax ko doon ko def ndànk ndànk di ko booleeg ziyaare bi

danañ ko téye di sàkku ñëpp xam lan mooy xobbal Moustapha rek mooy mi ngi nii fii la jëm si lii rek ko tax a jóg képp du la leen kon bi am nañ koy gën di fonk muy bisu siyaare bii xëccoowuñu leneen jëmuñu feneen dajulul mbooloo amunu mbooloo amunu daal amunu kenn lii dong mu daal mënu tax a jóg bis bii àdduna jëpp ñëw nu sargal sëñ bi siyaare delluwaat ci kër ya bi loolu yëpp loolee amee ci jabaawoon nga xam ne booba yi amagut daayira yu bari sosoogut daayira kaamil jëm sosoon nag tabaxoon ko rab moom day leen ñaanaan ndigalul yeesalaat ko daayira kaamil jooju yi nag jox nañ ndigalul yeesalaat ko woon nañ ci ñëpp mi ngi noonu ci biir barkeel na lool te alxuraan lañ fay jàng suba ngoon mës sa génn kuréel yi nga xam ne nag ñoom lañ bëgg a présenté sëñ Bass daanaka wax na li ci ëpp solo mooy buñ nee parce que xaasaat lii mooy diiwaanul muridiya jotaay bi loolu lay tudd loolu lay fekki xaasaat diiwaanul muridiya dajab mi ngi nii lii mooy diiwaanul muridiya dajab muridiya loolu lay tekki de fii xob bi xëy na mursile na ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak liggéeyal ko. kon ñoo ngi ndokkeel ñëpp te di leen gërëm te di leen sant ci turu bi ak ndigalam. di ñaan ci barkeb xaadimal Moustapha ak barke weeru tedd wi ak ki tax ñu daje mu yàggal fi sëriñ bi lool ci sunu kanam te mu ànd ko bu wér gannaaw bu loolu wee noo ngi am cant bu jóge yi sëriñ bi jëm ci ab kuréel boo xam ne dañ fay nekkoon di ko liggéeyal te kuréel booba sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ yi ne woon ca bopp te dem ba yàgg mu xamle ak tëli ci yaramam ak ñàkk sawar mu tax mu teggi liggéey boobee delloosi ko ca ña ko yoroon sëriñ bi wax ne diir bi mu ne ci loxoom lam ci jëf ci luy bàyyee ngërëm ak cant war naa ñu sant ko ci kanam mbooloo mi sëriñ bi ne mi ngi seeral ñëpp ak cantam ci moom ci diir bi mu yor liggéey boobu yi te ànd ko ñi mu ko war a àndal tañ def ca lañu ci war a def ci fulla ak fayda ak defal ko Cheikh Moustapha kon su demee ba am la ko gaar ba tax mënutu ko yor sëñ bi nee na du man lu ñaan loola sama borom teggil ko ko te sant ko te gërëm ko moo ñam àndaloon la ca dolli ko moo di ñam àndaloon liggéeyal sëñ bi rek leen tax a jóg mu àndoon ak ñoom ñu takku seen kanam su demee ba loola mu am ca gàllankoor sëriñ bi nee na ña ko àndoon ak moom mi ngi leen di jox ndigal ñu dajalewaat seen bopp te soññuwaat te tënkuwaat ci luy tax loola dox mi ngi koy ñaan mi ngi leen koy sant te di leen gërëm te gërëm mbooloo mi te ñaan daje bi ñu yàgg ko def ci dara yi Cheikh Mouhamadoul Moustapha farlu it ci leenu dajale ndax ki nu dajale fii Sëriñ Tuubaa ko tànn def ko ab taaw ngir tànn mu ay jikkoom ak jomam ak ngorom ku fitam loola tax mu tànn ko teg ko ci sunu kanam mu wuutu ko gannaaw bu sëñ Tuubaa génnee àdduna mooy ki ko wuutu ci jataay ba mu toogoon daa wax nit ñi na leen bu leen ma xool ci ki ma fi wuutu xool leen ma fi ci ñi ma fi neel ba ngeen de ba xam da gis keneen mu def waaye ku ne xam na ne ku ko xool keneen ci ku dul Xaadimu Mustafaa da nga xam ne sunu waa ji jàmbaar man na li ñu daya jërëjëfe moom ñi fi bàyyi lam leen bàyyi woon sàmm nañ ko ba mu ci ay loxoom ak si sunuy loxo ñooñu ko doon sàmm nag ci ngor ak jom ak dundal jëfam ak wéyal ndigalam moo tax ñu doon ko def kon su agsee ci noonu sëriñ bi ni sunu kanam leen war a def mooy lépp lu ñuy soññ ba la ñooñu yoon def ñu mën a def lu ko raw ñu xam ne ba yiw ñu sàggan bàyyi fu ñu ko wor loolu daal su amee leen bëgg lépp am na soxna si nga xam ne mook sëriñ bi ñoo yem ci nun ab cër muy soxna Faati Marème Lo soxna maam Faati Marème Lo dafa wax ne mu ngi yónnee ak cant tàmbalee ko sëñ Ahmadu mii nekk jawrin kër gi ba ci ka ci mujj ngir lu mu am lu ne jëmmi Cheikh Moustapha mu am kon Cheikh Moussa rek ku itteel ku itteel ku Cheikh Moussa itteel nag itteel nga ko te xam ne sañ sëñ Ahmadou Mahtar mi sëñ Mourou Moussa rek ko itteel kon nag mi mi mi ngi jéeme ak cant ci moom di ko jàllale ci mbooloo mi ak képp ku mbokkal kër gi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi yëkkati sama kàddu ci ndigalul sunu kilifa Cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacké mifi fi wuutu cheikh mustafa al karim ak mboolem jabatu cheikh mouhamadul mustafa gi sunu taxawaay nag mooy laa yasbiquunahu bil xawl wa hum bi amrihi ya'malun kon sëriñ bi mi ngi leen di nuyu yéen mbokk yi fi teew yépp doomi boppam yi njabootu cheikh mouhamadul moustapha gépp di nuyu bu baax ahbaabal moustapha di leen xamal ni haada al yawm يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك بسم ماغيني بس بو خامني نجابوتو شيخ مصطفى جيب دانيو داجي دي سياره شيخ محمد المصطفى دار القدس امول بس بو ابو بابو بس بابو سيرن بي نانا بس بو ريلا تي موم لي بوكنا تي ريسبونسابيلتي مو دون دوخ تي كير كو نيك كين كو نيك مصافو تاي جاو kenn ku nekk mu woo la xëcc la ci bis bi bu ngeen amee taw fexe dajaleel ko seen bopp daje njabootu Cheikh Moustapha gépp takk ko nekk wenn say kon yéen da ngeen ko noppal ndax lii ngeen def moom la waroon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di sant bu baax itam soxna maam ci Mbakke ñu gën koo xam ci soxna maam Faati Marema Lo ci taxawaayam ci bis bi taxawaayam ci kër gi ak yittewoo jëmmi sëriñ bii ak liggéeyu Cheikh Mamadou Moustapha bi waxtu wu nag mu ci tàbbal xelam di ci tàbbal aw ñaqam di ci tàbbal waxtoom di ci tàbbal ay xalaatam ngir lu jëmale kër gi kanam lu benn la kër gi ak lu gën a dëgëral bés bii lu mu ci def moom soxna maam faati sëñ bi nee na xam na ni xeeb na ko moom ca boppam waaye moom sëñ bi de lu rëy ci moom la ndax jëf ju bàyyi ko ci maam faati jëm ci moom mii jëm ci Cheikh Moustapha ànd ko njabootu Cheikh Moustapha moom ma ko jëf day ndax sëñ Touba moom loo ko jëfal xeeb ko waaye moom mii mu ko jaarale muy sëriñ Ahmadul Maxtaar xeebul jëf joju réylu nako rafetlu nako xolam sedd na ci bu a mi ngi ñaan li Cheikh Moustapha di yalla bu ko ci kenn mi ngi sant itam ñi mbokkal Cheikh Moustapha ñëpp été, kenn njabo Cheikh Moustapha gep lay sant mi leen di xamal la ci Cheikh Ahmadou a ci ba ci ci bu ñu am yéen yéenay sëñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Ahmadul Maxtaar cër boobu yi la leen jox bët boobu yi la leen di xool Cheikh Moustapha la leen uufal ndax xam na ni yéenay Cheikh Moustapha yéenay njabootu Cheikh Moustapha te moom amul lu may Cheikh Moustapha liggéey yulul ku dul Cheikh Moustapha xoolul ku may Cheikh Moustapha ndax Cheikh Moustapha mooy référence am Cheikh Moustapha mooy référence képp ku sukk jébbalu ci Cheikh Ahmadou ba Xaadimul Moustapha bis bii ci suñ kanam nag sëriñ bi nee na yitteem yépp guddi ak bëccëg moom la nangeen ko def seen i yitte muy bisub Seex Ahmadou Bamba bii lépp lu jag ci àdduna jag ëllëg ci bis bii la jage bu sëriñ bi desoon ci loxol tubaab bi lu bari dana baatin bi moom dana sotti waaye lii lii nu am ci saahir moom wóor na ne desu ko am li Seex Ahmadou Bamba waxoon Cheikh Moustapha mu indi ko fii loolu su échegoon lii ñu am i tey bi loola it du am kon euh, bis bii di ñëw muy bisub Cheikh Ahmadou Bamba boobu lu sotti lu ne ci la sottee bis la bo xamanteni Cheikh Moustapha dana wax ni ku fi jant sowe bët setal fi nga na fi lu neex sunu borom bo xeye mel nga ni bis ba nga juddo won ci set ci ay bakkar kenn ku nek xamna ni amul ben lire buy gane aduna andale bakkar kep ku fanan Touba bis 20 muharram guddi layla guddi 20 muharram ta fana na fi li neex serigne bi neex Cheikh Moustapha bu ba seté watal ni yaa ngi buy sogo a juddu yéene yam ci set ci bakkar loolu nag bis bu mel noonu bu nekkee ci suñ kanam sëriñ bii fonk ko nun eh, ñëpp muy sunu kilifa bëggam gépp di lu jagal bis bi bëggam gépp di lu bégal Cheikh Moustapha bëgg bëggam gépp di téyal sëriñ Modou mustafaa la ko sëñ Touba dénkoon ba mu andi ko jëme ko kanam gën koo rafetal la tàmbalee ci Cheikh Ahmadou Mbacké di dox ba ci moom lañ ca doon jëf lépp su sañan jëfaale leen ñoom ñëpp ba jëf jëfi boppam te loolu yéen ñii yéen di ay jumtukaayam yi muy àndal yi muy àndal ci bis boobu ngir liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba sëñ bi mi ngi sant ñëpp di bal ñëpp ak di balu ñëpp ak di leen di leen di leen di leen xamal ni lii ngeen def rëy na ci moom sedd na xolam yal na sëñ Tuubaa wuutu ko ci yéen seral seeni xol yàlla na seex Moustapha wuutu ko ci yéen seral seeni xol wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu daa xiiru ak ñay matt seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Moustapha sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha